Bombardier ne nee na nee na xam nga lu mu wax nee na combat bi yaay sarax bi. kan ma wax loolu. dégg naa Bombardier wax lii. waaw ba boobu waaw yal yàlla bàyyi jàmm tamay ñu wér at fekke at tal waaw ku xamul nag xamul. waaw yàlla suturaal tamay ñu wér at fekke at tal. Mm-hmm. voilà. tax Lirou Diane fu ñu gisee Balla Gaye Lirou Diane bannu ci bët buñ saañu ngeer. waaw sama rakk la sama xarit la maa ko yar. Mm-hmm. bañul ci man loolu man tam bañu ma ci moom loolu. Mm-hmm. daw ma saala yaay ndeer ah oui. mais li fan daw ma ci saala yaay ndeer saala yaay ndeer mais fan yi gis nga waa ji ma téye léegi. waaw dëkkul géej waay lu mu fi wut. ah daa daa daa ñëw ci anniversaire. wuñ ko eh, waa léegi man ay eh, tawul nee na man maa tax muy duggaat ci làmb ji ba pare bëgg fee ñëw hmm. ba pare ñaareel ba dëkkul géej waay lu mu fii wut da de ragal laa fi dégg de li nga ah. ah, daa ñoo la nga bañ ni du dugg yaag moom la lu ma koy dawee ah lu ma non invité ko invité wuñ ko. mais bari ñu fi ñëw te kenn invité wu leen te waxoo leen dara. bokkul géejawaay lan dëkk xam naa leen géejawaay lan dëkk waaye moom dëkkul géejawaay moo tax. mais fu ne nii nag yëngal nga internet beeg ndaw si. car macha allah dimbali ma erreur la woon erreur la jeex na jeex na. anniversaire bi fii waxal waxi anniversaire bi. waxal waxi anniversaire bi. occasion sañ nga maa dóor lu ma ci ragal barki Serigne Fallou Mbacke lu ma ci ragal waxal wax ma leen lu ma war a wax. wax ma loo ma war wax ma dama laa bëgg barki Serigne moo gën ci yow Fall xam nañ dama la waaw koo bëgg bëgg na la mais solaatal verre ma xool jantal nga nag koo bëgg ba car macha allah dégazel dégazel bu ma dana dégazel rek mun ma dégazel waay non mun maa namm sa dégazel yow booy bu ma tooñ ko nan wax leen fi indi ci anniversaire bi non liiru jaan bu ànd ak Balla Gaye ñaanal leen Balla Gaye yàlla lafal ko cat mu yaakaar fet bari na am na fulla am na fayda tandaanaan kul fadlin la fàttewul nitu démbam bëgg na waa géej way fàttewul ñi nga xam ne ñoom la àndal soo waxee mu ne Simon Talla Mbeng Mbay Diop Pam Mama Andaw Ndiaye mm-hmm. ay nit démb mm-hmm. loolu mooy àdduna jéy euh, kee nu mu tëddee euh, ngóor sa euh, Aziz Ndiaye papaam mm-hmm. Baye Ndiaye moom la doon babendoo ak ñoom Masata loolu mooy àdduna mais lan nga jëflante ak moom li tax nga gën a yokk ànd moom parce que nag bari na ay mbër yoo xam samay rakk la ñëpp samay rakk la moo ci gën a nekk lan nga jëflante ak moom ba tax nga jàppee ko noonu Lac de Guiers du sama rakk Lac de maa ko njëkk eh, déglu la heure wax booy bu fi indi problème Lac de maa ko njëkk a tëggal maa ko njëkk takkal sër mu bëri noon bàyyi booy bu ma ko waxati de yow saytaane nga yow yaa ngi may yàlla yow Lac maa ko ñaanal jabar sama rak la salaam laa seq ma bàyyi la affaire saytaan man ñëpp sama non non c'est pas dëgg Lac de Guiers c'est pas vrai c'est pas waxu la loolu ah nee na xamal man ñoom samay rakk Guy Gee Alioune Seyde Lac de Guiers ah, booy ndaw ñoom Pape Thiam ah, ñoom Marley booy ñëpp c'est mon ami sama frère samay rakk lan ak sama rakk la ñoom ñëpp samay rakk lan booy bu fi indi problème yow saytaane nga waaye dimbali ma waaye du pourtant li mu nag dëgg de yow ne waxal sama sànce bi soo soxorul soo barki yàlla waaw soo soxorul wax ci li nga sànce dafa ëpp xoolal verre yi weer yi 150 000 lay jar. ñaata lay jar 150 fanweeri junni lay jar. Darou Moussa la net ñoo ma ko jox. nekk ca domaine Dakar. Mhm. ma am sama xam nga adduna moo tax lu waaye di def na rafet. lu waay di def na baax. maam am sponsor. Mhm. muy mu ah si. vraiment. te balancer laa doon solde. kaar bul ma catu. bul ma catu kaar waaw kaar déet déet bul ma catu kaar. waaw di gërëm waa 150 000. waaw di ko xam ne Macky Sall sax du ko soxla. waaw jëndu ma ko sama sponsor yee ma waaw Modou Mbacke baaxee écouté jaar fii moo Ndiaye. Mhm. jox ma séeri mat leen mat leen def nii jox ma mbasin dama solal.